relation artiste nekk Guédiawaye lan la. jàmm ak salaam rek laa seq ñoom ku ma si gis damay kaf ak yow di reetaan ak yow ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ay borom baax loonu vraiment damay seq ak ñoom jàmm ñuy kaf di loolu leen seq. yéen artistes yi koo ci seet ne sa diggante artistes yi nekk Guédiawaye mu commencé naan non samay waay la parce que fan yii dégg nañu fi sa coow ak Mboy ma jaag. non maa ngi Mboy mosuñu coow maa ngi ma jaag moom maa ngi moom mosuñu am benn problème Mboy sama nekk daanaka sama néeg lay nekk ba 4 heures du matin avant maa tuxu si fii nii ba ma nekkee Baxdaad sama néeg la daan nekk ba 4 di du matin ñuy seetaan ay théâtre maa ngi moom di kaf di ree su amee programme su ma jéewul na ma booy damay jée Pikine wala ma jée Parcelles jaar fa benn heure bi ma sangu sol lu rafet dem jaar fa mu jox ma micro ma bëf ambiance toj foofu ñu teral ma bu jéewul ma ne ko booy fii laay ma jox ko micro mu dugalal ma femme bi ñu ambiance parce que ñoo bokk ndey ak baay bokk Baxdaad booy mënul bokk fii maa moom pare du réero mënul nekk na ci li nga xam si artistes yi bëri ñoom problème bi nga xam ne moom nga ama ko sonal ko fi ba mu këral la boobu ba léegi di gisu la déggu la non Thiat loolu loolu wax ju yàqu la Thiat mënul Thiat sama mag la Thiat sama sama sama sama anniversaire bi ma defoon fii si bayal bi fii ba ma ko ko waxee ni ko ay sabar rek laa ko bëgg piano dañu ma bu ko def baal ma defal la ko orchestre maay indi orchestre maa koy fay maay maa lay wayal maay fay musicien yi waaw ñi ñëpp fekk nañ ko caat moo fay defal ma podium boo xam ne trois cent mille moom moo ko fay def ay barrière barrière yi benn mille franc la fay lu mu ñàkk si jour boobu nag mën na si cinq cent mille te moom moo ko def ñëw wayal ma ba mu neex sama clip tamit jot ma woo ko mu taal otom ñëw fekk ma studio dugal ko dafa ñàkkutoo xëpp si biir studio bi kon caat nit ñi dañuy wax nii rek man caat sama grand la ma yéene baax moo tax voyage bi ba mu jotee dama ne ko war naa mën a am lu ëpp lii parce que xol bi dafa rafet waaw muy sama ma demee soirée am tropique danaan ma kaay ma yéeg ma micro mu teral ma may ma ay junni yu bëree bëri mu doon ko mën a way nag waaw seen émission nay riir la ñu ànd ak xale bi nga xam si ni moom moo di amatan borom géejawaay comme ni ñu koy waxee borom baxdaar borom wàq naan waaw ah borom fépp man maay borom fépp waaw géejawaay moom xamal naa la benn affaire si samay xarit lan mais dañ may sóor de ku si dajeeg man da ngay xaar de waaw waaw coow li bëri na trop nag waaye. léegi bëgg ñëw fi mooy sa diggante xaarim temps parce que dañoo wax ama temps ne xaarim temps xaarim temps nee na yow temps am nga jël. xam nga man boo waxee loolu ay da damay jàpp te xaadim sama xarit la sama doom la la mu war la mu war a bi nga ñëwee mënu woon def amaat leneen sax mais amaat temps xaadim yoo xam ne xaadim temps moom xam nga ne moom xaadim temps moom ñëpp xam na xaadim temps mooy borom temps nga ñëw bëgg a jël bëgg a jël amaat temps bëgg a jël temps pour quelle raison <laughs> waaye léegi damaa bëri doole boobu maanaam damaa bëri doole si seen kaw foqati non xam nga di foqati dafa nekk loo xam dama ko moom yow euh, xam nga nee naa lu nit ko nàmp ak lu nit ko for bokkul bu dee temps moom heure bi da ko waroon fekk moom bi da ko waroon fekk xaadim moom heure bi da ko waroon fekk muy liggéey menuisier walla muy liggéey mécanicien man lii la ma yàlla jagleel géwal laa li laa nàmp mu ñëw ma yaatal ko suñu kër nee naa la man maa ko indi suñu kër bu toogoon fii ma wax ko mi ngi may seetaan man maa ko indi ni ko kaay sama mag day tëgg poussé ko si aar bi kon man maa moom temps da nga koo poussé ba pare ne commencé koo siis parce que xam nga ne parce que non boo fi nekkee naan xaaral du géwal ak du géwal ak géer laag nag ne war naa fekk mu nekk est ce que nekkul da ngaa commencé da ngaa maanaam da fiir non non du ma fiir xam nga la moo tax du ma fiir ragal yab yàlla la te ñoom lu ñuy am rek maa ngi am double am maa ngi sant yàlla bu baax lu ñuy am man wér na mi maa ngi am double am bu ñi ngi tëggi buñ dee tëggi tey man dinaa man chaque jour ma tëggi macha allah man damay tëgg lundi mardi mercredi ba ba weekend ñoom ku ci tëgg tey di nga xaaraat beneen fi kenn nga tëgg yàlla mën la jégleel lool ba ba ba géwél yi sax dañ may tam dëmm géwél yi. parce que yaa gën a yombale. di question ay moor yombale. non man man man xam nañu ñoom xam nañu bu baax déggoo man la damay waxaale lu cher ñu jaar suuf ni loo ma jox ma naa yow xamoo mais ñoom xam nañu bu baax damaa aay si damaa aay si ñoom damaa aay si ñoom bu baax a baax a baax. su ma la déggee yaa ngi gën a saf butéel. yaa ngi gën a sax bu dee waroo waxal rek da ngaa da ngaa nelawal gars yi non nelawal gars rek. nelawu ma sax li ma leen man yooyu sax góoma ko comme ay sangu yii nii man xam lu ma gëm sama yaay ñaanal ma. Amata moo garaaw <laughs> Amata nee na maa aay ci gars cey nay riir. waaw damaa aay si ñoom bu baax. ku ma si dajeeg ñoom programme ak lépp boo boo xamee ne amaat ñëw la di boo dem cali cali sax di nga def nànk mais teewul na jaamu lan sekk mais bu dee wàllum seen rek da ngay xaar. Balla Mbaye ak nii sama manager sama ji moom xam na li wax bu baax ku ma si dajeel moom da def nànk-nànk wax dëgg yàlla ah nànk-nànk rek. mais <laughs> nag li ñu mayoon ci waxtu mi ngi bëgg a jeex te ko wax amaat wax sa dëkkandoo yi sa am na jàmm yi sa xarit yi ñu bàyyi la nga sant gërëm bu ko defee ñu ñu xool nag nu ñuy jeexale émission bi. waaw bu loolu weesoo nag wax dëgg yàlla damay sant sama jabar ji nga xam ni mooy sama aaw buur këram fii ma nekk dama fay loger rek ma ñaan yàlla damay ñaan yàlla yàlla. nit jaam sañ naa ñaan ki nga xam ne mooy buur bi damaa ñaan yàlla jëndoo ko kër boole ko moog sama yaay ñu dëkk dëkk bu rafet ndax damaa muñal man si pantre laa dëkkoon man ma koy may boobu yoruma dërëm si pantre laa dëkkoon mu di ma muñal ba yàlla def tey may dawal ay xam nga di sant yàlla daal waaw mu doon ku jàmbaare léeg ma tëgg ba ñëw sax sédd ko ni ko lii maa la ko may da koy denc ba ma banque ba banque ba banque ba banque mu génn ko ni ma lii maanaam ko lii foo ko jël des fois damay mer foo jëlee lii xullu ko sama bëri mu ne ma noo lii yaa ma ko joxoon bistel bistel ma ma doo ko comprendre mu ne ma boo may may lii rek laa koy def dama koy denc pour boo boo ñàkkee kon xam na kooku jabar ju ma jabar la fan yee passé dañ ma invité TFM ndeysaan ma fàtte koo gërëm mu metti ma trop nag maa tooñ bu baax moo tax ma naa ko maa ngi jégalu ma koy ñaana am sëñ Fallou nag ma langal ko si bayal bi langu rëy si kàttanu yàlla di gërëm ki nga xam ne. bu ko fàttee bu nga fàttee neex la woo de. <laughs> di gërëm xadi di gërëm sama sama sama sama maman bi sax nu mu tuddati. Adama di gërëm sama xarit bi ab sax. Balla Mbaye ngi nii Pa Bour ngi ne moom tamit kontaan naa lakkle di la gërëm. wax dëgg yàlla man télé bi damaa jàngut na nu mu tudd. waa SBT waa di leen gërëm bu baax a baax a baax vraiment bi nga demee TFM laa wax suur bi nga demee TFM fàtt koo gërëm bi nga ñëwee bi nga ñëwee noonu affaire bi non. <laughs> moom damaa mel ni xale. parce que léwal ga ma waroon njëkk a jox rek da koo aj xulli ma bëri ni ma yaa dem ba TFM sama mbokk ñëpp ma jini këri di woo si sama xaalis nga war maa gërëm ma ma mel ni cóol mi kay damaa muuma. façon baab bu ne baab naa ko ni ko ndey xaar RTS2 dañ ma a invité <laughs> waaye Papa Ndiaye ci coom war naa gaaw si émission bi du dégg <laughs> noonu fa demee daal. noonu la fa demee waaye nag wax dëgg yàlla moom du jàpp mer du jàpp mer borom baax la muy sama xarit di gërëm nag Abdou Ngom sama mag jàngal na li ñuy def wax dëgg yàlla tey am na fi tamar major yu bëri ñu ngi tegi dañ ko war sant yàlla Abdou Ngom ñu moo def si ñoom aar man nee naa la mënu maa tiit mënu maa am lu may tiit waaw man mënu maa am lu may tiit ndax damaa am damaa am mag joo xam ni wax dëgg yàlla si moom laa wéeru muy Abdou Ngom des fois damay dem damay génn fen ñun ma yow koo bokkal léeg baa ma ne ñun ma am mag bu mën a tëgg ma xam ne man waruma waruma ragal fa ma jëm waaw te aar bii nii si kàttanu yàlla yàlla lu may bu ko nangul man dinaa si dawal oto dinaa si jënd kër waaw réew mi maanaam tolluwaayu réew mi noo ko gisee waaw réew mi nag wax dëgg yàlla eh, xaw ma ni nga koy waxee savele xaw damaa jàngul mais Macky Sall war nañoo dimbali ñu sabari ñu arrêté te ñu jëm si koor metti na torop fan yi waroon naa yaakaar ay avance yu waroon a ñëw doon maa woowaat ma yaakaar danaa ma kaa jës avance ñu ne ma dañ koy bàyyi ñetti avance yoo xam benn bi na fukki junni la xam nga loolu neexut ngay fay luyaas yor jabar ñu arrêté bagage yi nii foo génn ñu naan la virgule la vir kii feebar bi nu mu tudd. naa la ko noo wax ko. coronavirus bi xam nga yooyu tamit neexul coronavirus bi ñuy wax ah ay senegal la nañu baay ñuy tëgg suñu programme yi ah ataaya sax ba lu nga koo jënd da ngay dem si bëgg ba ne ko jox ma ba fii ak suba. xam nga tamit neexut. coronavirus moom dafa lëmbi réew mi donc lii pourtant bu ndaw la ñu xool parce que xoddeeku xoddeeku ci bala ngay lakkale xam nga xam nga fagaru moo gën fajo parce que boo xoolee tey loo xam si nii donc mi ngi mi ngi lëmbi àdduna bi boo xoolee réew yi nga xam ne moo ñëpp doole yëpp coronavirus mi ngi fay def ay jëf yoo xam ne booy xool ci télé wala ngay déglu information yi nga xam ne mbir la moo xam ne si kenn xamul di ñaan yàlla suñu ko a gaawee parce que boo xoolee comme li nga wax ni tey programme yi activités ni appel bi lu si mel ni màggal kasareb ak yeneen programme yi ba ci charge général bi nga ko arrêté kon mu leer na affaire bi maanaam mbir la fi ndax Sénégal moom dañuy ñaan yàlla jàmm am fi man de loolu laay ñaan doomi Sénégal fi ne nii moom nañ ñaan jàmm ci àdduna bi wërngal këpp xamul tax parce que doomi Sénégal ñi ngi àdduna wërngal këpp waaw kon boog damaa juum damay ñaan yàlla jàmm am si àdduna bi Afrique ak Sénégal ak États-Unis ak fépp mais wax dëgg yàlla Macky Sall comme arrêté na affaire yi waroon naa wër géwël yi ku si nekk mu jox la ñaar fukki junne ak saaku ceeb ak diwlin man moom damay lancé waale message bi ça valait occasion bi dama koy lancé parce que tamit metti na waaw metti na trop de man moom maa ngi koy commencé yëg. Marème Faye Sall Marème moo si gaaw li ngay wax ni Marème moo si gaaw. mais Marème foo koy gisee Marème Faye Wade foo koy gisee. fan koy Marème Faye Wade Marème Faye Sall. Marème Faye Sall laax foo koy gisee fan nga koy gisee. moom de la ah kon boog yaa ngi may dégg ñun géwél yi fu mu nekk affaire baa ngi commencé saf man li ma dencoon mi ngi jeex te damaa bëgg lekk gu neex man sax guddi dinaa jënd poulet entier bu junni ah. def crème glace sama jabar ji dama ko yàq te fan yii nag moom nee naa ko crème galaas mi franc la jël bu yóbboo ñaar fukk. seen émission Ndeye la woon ak Amata bi nga xam si ne macha allah ku dégg li wax xam ne ndaanaan la bokk na ci aar bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax amaat kontaan na suñu xol sedd na wax dëgg yàlla euh, donc émission bi leen bëgg mu neex mais ndaanaan nga moom ndaanaan nga parce que ñun ku ñu seet rek ndaanaan nga donc amaat ndaanaan nga yaay borom léegi lan ngay tàggatoo. waa di kontaan rek waa di kontaan nag di bu dee dam da am loo xam ne dañ ko fay wax loo xam ni ku si nekk xaw nga see gis sa bopp ñu ngi jégalu parce que dañoo bëgg mu neex rek ñun artiste yi Guédiawaye ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay am sa yaay nga yóbbul kon ñëpp dañoo war a am waaw maa ngi kontaan naa daal mais nag di la ne lu ma la waxoon jóguma si waaw artiste Guédiawaye moom ah maa aay si ñoom waaw bu baax. ambiance ngay créé ñu tàggatoo ko waaw xanaa ñu ambiance rek cey ambiance <laughs>